ne Cheikh Sidi Hadj Malick radiyallahu anhu ne mbiram daal moom góor gi kenn mënu ko wax ne démb rek ñun ñépp ci mbaaxu yàlla ci teewaayu kilifa gi Sidi Boubacar Sy Mansour ak kilifa yu baax yi fi bokk di daje nee ñun ñëpp démb sunu ruux màndi na ci waxtaanu maam Maxtaar Kébé démb fii ci liggéeyu ku baax kii muy Cheikh Sidi Hadj Malick nee ba ñu génnee mi ngi naan Maxtaar man kat danaa jàngat téere yi ak luga bi nga xam ni moo ci ne moo tax amul kenn ku wayandoo ku baax kii tëdd muy Cheikh Sidi Hadj Malick yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ne moom ne sànq rek dafa doon waxtaan ak bokk yi mu ni Cheikh Seydi Hadji Malick ëllëg rek lañ koy xam ne mu ni rek doy na rek nga xool ci xutbatul jumaa bi nga xam ni moom la defar wax ja góor ga wax ne wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله شهادة من شهادة من لم ينس الشهادة القبلية فكان من جملة الحائزين من ربهم المزية man daal góor gi man Cheikh Seydi Hadji Malick santee yàlla. ba ma santee yàlla. mi nga xam ni. mi nga xam ni. moo sant boppam jëkk kenn di ko sant. maa ngi julli ci soppeem bi maa ngi julli nag ci soppeem bi di ndawam. sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi muy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. di dëggale loolu. di dëggale loolu. seede gi. seede gi. ni moom rekk la moo tëj buntu nubuwatu sama seede gi nag man Maodo maa ngi fàttaliku maa ngi fàttaliku sama seede ga yàlla seede woon ba mu bindagul nit ñi shahaadata man seede nag ka nga xam ne lam yem sa te boppam nag la ci jublu fàttewul mukk moom yàlla te du fàtte achahaadata seede ga alqabliyata jëkk nag dara di am muy yowma alastu bi rabbikum fa haada fa kaana ne gis nga waxul fa kuntu dafa ne rek fa kaana sërxal boppam rek moom Cheikh Sidi Hadj Malick ci biir jullit yi ak jaam fa kaana nag mu nekk te kaana ga nag moom la min jumlatil xaaisiina ci groupe nag ba nga xam ni yàllaa leen sélectionnel boppam may leen lim ma may ba ma ñëw àdduna seede ga jib ci sama ruux di jib ci sama lépp ba tax na ñooñee daal yàlla may na leen golo yu mag lu ñu tudde almasiya ngëneel teraanga tedd nga yoo xam ni jaam bi sañu koo gis ndax ku ni jàkk yàlla dootoo am looy jéem a bége looy yokke sa bopp moom yàllay kese góor gi moom Cheikh Seydi Hadji moom la jàngale nee dégg nañ ko ba tey ci sëñ Babacar Mansour ne ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku war naa mat daal juróom-ñaari at at yi dafa gaaw kaar moom Serigne Babacar Mansour mu ne ah burdu bi neex lool way yi neex lool mu ne fii de kenn du fi ñëw ne yéen daal fii ngeen ne ak li ngeen nekke ba yàlla fekk leen fi te loolu nag tabaarakallahu wax bu kawe la loolu nag ne mooy kàddu yi nga xam ne moo jóge ci Seydi Bakar Si Mansour nee nag di ziyaara ñépp di baalu xaqit ñépp mbokk yi Cheikh El Hadj Malick Si Maodo nee nañu leen di baaloonte xaq xaq nag lu gaaw a topp nit la yàlla rekk moo ci mën a baaxe jaam te nag insha allahu nag daf ñuy baaxe déedéet waxul baaxe gi de dafay ëmb rek ñi ci zawiya bi rek de képp koo xam ne yow ab jullit nga rek dugg nga ci soo góorgóorloo tuuti rek bokk ca ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am na ko yàlla qualifié daf ko laaj ni ko waman ahsanu ana kan moo gën a rafet qawlan ci kàddu min man waaw ca kaa wala ca kaaka wala waaja nga xam ne daa woote na ilallahi jëme ci yàlla rek mënoon na fayam waaye ne nit wax na jëf jëf jëf wetti waxam wa amila te mu jëf saalihan aw yiw ne bu ma xam nag man yàlla ñun ko waaw yow koo bokk luy sa identité yaay kan mu ni ko na waqaale indi nii mu ni man mii ngeen laaj lool yi duma ni jullit rek laa de minal muslimiina ci communité bi ci ummatu bi ci laa bokk ana ne bu fekkoon ni ni tey wax ni ana dafa naan muslimu waaye waaye nag wa ana min allul muslimu dugalal sa loxo ci biir jullit ñi koo jot rek koo jàpp rek maay kookee waxaat nag ci alquran ne di wax soppeem bi rek bàyyiwu ko benn yoon innama umirtu an a'buda rabba hadha albayt rabba hadhihi albaldata allati alladi harramaha lahu wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimin min almuslimin rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee léegi rek dafa wax ak ñoom maxtaar bi ñu jullee timis ba noppi mu ni maam maxtaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rëy na de ne réyam ga nag ma nga ñuy diri ku dib jullit nag incha allah te jéem jaar yoon waaw asalaamu aleyka ayuha nabiyu nee na foo fa mu jibe kawe na gën naa kawe nag ak kawe yonent bi dégg baatu yàlla sallallahu alayhi wa sallam assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatuhu te kat ba léegi damirul maxaatibam ki ngay waxal bone nee assalaamu aleyka ci taaya sa ruux junj na ka yàlla teeroowal kaddu yooyu delloo ko kaddu ya xam ne moo ko ko sax yéen kewal ko ko ni ko lii laa la ko faye te mooy attaxiyaatu lillahi alzakiyaatu lillahi altayibaatu salawaatu lillahi ni tekk nag alxadratu xadaratu kulluha nuur kulluha nuur wa jalaalu wa jamaalu wa bahaawu daal sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo ko xam moom yonent bi kon daal Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo ne kon nag mbokk yi loolu dañ ko doon rek gannaaw bi ñu jottalee nuyoo kilifa gi ne kon nag ñu jox góor gi xaaj Mouhamadou Moustapha ak sëñ Babacar ñu dugg ci liggéey bi ñu jàng faatiha salaatul faatiha mawlaaya salli wa sallim daa'iman abadan ala habibika xayr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 أشد من صغب أحشاء وطوى تحت الحجارة كشحا مطرب العالمين على أذكى التميس لله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من التيم الحكيم في غير في كل

wa

يعدل جندا لما أعظمه طوبى لمنتشر منه وملتزم وكل لطيفا بنا في كل نازلات لطفا جميلا به الأهوال تنخسر مولانا عشاء القمر وسلوا في داره وكفى الهدى بدر المتمم بسيدنا محمد بدر الهدى بدر المتمم بسيدنا محمد نور الهدى بدر المتمم بسيدنا حبي لسيدنا يا محمد من حبي لسيدنا يا محمد قلبي يحن إلى محمد خير رسول تاهل يا رسول الله

سويا يا أبي

حب لسيدنا محمد نور الهدى بدر المسمى حب لسيدنا نور الهدى بدر المسمى من حب لسيدنا يا محمد من حب سيدنا يا محمد قلبي يحن إلى